asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyoo fii ci jumaay Cheikhul xadim Cheikh Ahmad ci taxawaay bi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi koy taxawee rawatina weeru Ramadan bii bu ñëwee taxawaay yu solo yi nga xamante ni mu ngi jëlee ndigal loolu ci Cheikh Ahmadul Muntaqa mu koy taxawee di ci faral di daloo gan ñu fasanti ko tey jii nag waa alxuraan ñooñu ñi ñi sëñ bi fonk lool dënk leen dëkk bi. ñu yër ñuy topp too di saytu téere su borom subhaana boo taala boobu nga xamante ni Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba waxoon na ci wax ju rëy ñooñee nag ñoom la daayira Muxaddamatul Xidma ci njiital imam si bu so la daloo tey jii nii ginnaaw bi nga xamante déglu nañu waxtaan yu am solo yi nga xamante ni moom lañ baaxoo ànd ak yéen biñ ci noppee dem nañ bokk xeewlandoo biñ ci noppee nag war na am kaddu yoo xam ne yëkkati nañ ko wax ci diggante bi nga xamante ni mooy seen digganteeg daal ma xadmatul xidma nga xamante ni wenn waar la rek boo xamante ni ñoom ñëpp ñoo bokk nekk ci bokkoon bokk noo ndigal lool ndigal loolu ñoom ñëpp ñu bokk nekk ci euh, sëñ euh, sëñ Moustapha Mbacké Ñaaxar moo yor war a yor seen kaddu tey incha allah dina gën a leeral délégation bi mu àndal ak ñi nga xamante ni fa la bàyyi ko incha allah sëñ Moustapha Ñaaxar yaa ngi en direct ci MK TV ci ci télé Jumaa ji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 ci faran Touba wuutu ci mbokk sëriñ Xaadi Jaxate ci ginnaaw bu ko ngant dabe nu wuutu ko tey ànd ak délégation rabita madarasul Qur'an bokk na ci délégation bi sëriñ Abdou Samad Sill mi ci sama ndeyjoor sëriñ Omar Mbacke mi ngi ci sama ndeyjoor bokkoon na ci mbokk yoo xam ne xëy na ña ngi ca yëf yi mbusoo bee noppeegunu euh, sëriñ Jili Mbackeem sëriñ Mudam sëriñ Alaaji Silla Imam Kër Ñang ak yeneen mbokk yoo xam ne xaw nañoo bari duñ neex a lim waaye buñ ci tuddee ñoo ñu wuti ñi ci des ñoo fi teew kon tey teewal fi rabitatu madarisul quran ci seen kollërante ak daaira muqaddimatul xidma ni nga ko waxee alaqa diggante rabita madarisul quran ak daaira muqaddimatul xidma suñ ko mënee jàppee ab ëlleer akub gopp mm-hmm. buñ ko tuddee noona defe naa duñ juum mm-hmm. muy ñaari mbooloo yoo xam ne ñaari jumtukaayu sëriñ bi lanu di daara ji ak jàkka ji di jàkka ji ak daara ji jàkka ak daara ji daara ji ak jàkka ji suñ ne daara ji ak jàkka ji njëkk mu dëppook wax yonent alayhi salaatu wassalaam kon al madaris qabla su booba kon maa ngi jubloo wax ne membre yi nga xam ne ñooy membre rabita madarasul quran ñoom ñoo wëlbatiku nekkaat membre yi daaira muqaddamatul xidma ndax lu ëpp ca ñoom ca daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi ci biir rabita madrasa Quran lu ëpp ca biir rabita madrasa Quran ñu ngi ci biir daayira Moukhaddamatoul Khidma kon nag euh, menn booloo lañu euh, wenn waar lanu benn tool lanu seen diggante it euh, kon su ma nee benn lanu mu doy seen jëflante it jëflante la boo xam ne amul waxtu amul bis amul heure waxtu wu ne ay wagg yu lëngoonte lañu ànd rek di dox ci waaru sëriñ bi doon ay jumtukaayam mel ni rafet na hmm. ndax li ci ëpp sëñ bi day far di digle njàngum xasaay njàngum alxuraan alxuraan waaw te saa ko digle li ci ëpp hmm. fi ñu ko yaakaar defe mooy ci barab hmm. bi barab bii tam bu ngeen ñëwee da di fekk si ñi nga xam ñoo yor di ko saytu doon dafa mel ni loolu euh, lu yàgg la waaye itam même bu fekkonte ne euh, alaqa mu toon day mel ni kon sëriñ bi comme li nga xam noonu nga ko waxee faw alaqa day daal am saa bu fekkee ne loolu am na nag nan ngeen koy jàngate ak nan ngeen di dundee lool nga xamante ne mooy ndigal li sëñ bi joxe ci yéen ñaar alhamdulilah laaj bi tontu na boppam ndax dafa fekkoon ñaari mbooloo yi dund woon ñaari mbooloo benn lan woon ci àndoon ànd benn liggéey ànd bokk wenn waar ci waxtu yëpp waxtu woo xam ne ndigal di jib na ci ndigalul jàng alxuraan fekkoon na saa yu ndigal fekkoon na jàng alxuraan mi ngi fi doon am fekkoon na daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi liggéey rabita bi mi ngi liggéey kon xanaa bis lay doon boo xam ne suñ ko mënee tuddee bisub toolu àllarba xanaa boo xam ne yaari mbooloo yëpp dañuy ànd bokkandoo benn tool bi noonu rek lay demee bu boobaa muy doon liggéey bu yomb ñoo xamante ni mhm. ñu ngi ci daaray kaamil bi nga xam ne moom moom la sëriñ Touba euh, bi ci jumaa ji dénkaane woon bi ci mhm. jumaa ji mhm. ndax comme ni nga ko waxee nii waa xidma mooy waa waa mooy waa xidma kon jombul am na ñoo xamante ni bokk nañ ci rabita te nekk foofu ci barab boobu wala boobu ban ban bañ bañ lëkkaloo ngeen am diggante daara jooju nga xamante moo lëkkaloo bi it ba tey mooy lëkkaloo bi amaat ci diggante Rabita ak Moukhaddamatoul Khidma ndax daayira bi nga xam ne mooy daaray Kaamil ju Tuuba daaray Kaamil ju Tuuba mboolem membre yaa ngi fay fekk ñoom ñëpp it ñoo nekkaat ci biir Rabita Madarasul Qur'an ndax ñoo nekkaat di kàngami alxuraan yi ngànk daaray alxuraan ci Tuuba tey yooyu ngànk ci Tuuba ñoo wëlbatiku nekkaat kàngam yi nga xam ne ci ndigalul xalif général des mourides ñoom la tegaat liggéeyub dara alxuraan yi ci seen loxo di leen ko saytuloo di leen ko xoolloo di leen ko rafetalloo di leen ko melalloo nii ko sëriñ bi bëggee kon daayira Muxaddamatul Xidma kon ak ni nga ko waxee muy euh, daray kaamil ji ci jumaa ji ba tey ak rabita madarisul xuraan mbooloo yooyu yëpp kon mun nañ jàpp ne rek mel na mbooloo mi la alaaka bi nekk seen diggante mooy yàgg ànd yàgg bokk wenn waar bëgg a yaatal liggéey sëñ bi tax ay tur am rek mhm. fenn fu ne am ñu fa féete mhm. noonu rek la demee waaw mhm. ñu ngi bég ci kaddu yu baax kaddu yi murite na euh, kaddu yi taalibe la te itam mel na ni a baax li taxoon ñu dal leen fii itam mel na ni gis nañ ko bu baax baax ñu ngi gën fas kóllëre ko bu baax a baax dinañ gën a talal loxo bu baax a baax saa su ne waxtu ñu ci yëgoo rek incha allah comme ni nga xam noonu la ko sëñ bi bëgg rek mu sottee ci ñun incha allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa